Mm.

xamal leen kan mooy boobu la jëmm fan la jàng teew fii rek comme niñ koy faral di amalee ci yeneen bërëb yu bari te wute tey ñu dala nag yegg si fii bëggoon xam njàngale waaye tam doxalin ak juddu jëmm joo xamante ni nii ñu baree bari ci àdduna bi ñu ngi dégg tur waaye bari loo xamante ni ëmp nañ ko ci moom moomu la lan nga ñu mën a wax moom ci juddum. Euh, mbokk yi gannaaw bu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi fii tey ci madinat Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ci jamono boo xam ne ñu ngi waajal feetu juddug yonentu la muhammad sallallahu alayhi wa uh, gan yaa ngi wàcc di jóge fu nekk ci àddina tey ñu ngi fii ak Seneweb uh, ci sama kër ñu di ñu laaj ci loo xam ne danañ am mbégte pour tontu ci ndax uh, liñ ci tontu làmbatuwuñ ko Seydi Aliou moo ñu jur waaye gannaaw bu ñu juree itam dañoo dund ak moom jamono boo xam ne mën nañoo wax ne mooy jamono bi ëpp importance ci dundam mooy jamono bi nga xam ne résultat dundam yëpp feeñ na parce que ñun ñu ngi dund ak moom euh, juróom benn at yi nga xam ne ci la nekk xalifa Baye yu nekk ak moom ci benn kër di jàng ci moom jël tariqa tijaan ci moom mu jàngal ñu tarbiyaal ñu juróom benn at yooyu yëpp ñoo ko dëkk ak moom mosuñoo tukki euh, ñu ngi dëkk ak moom ci benn kër di ko gis waxtu wu nekk di bokk ak moom di def dog di bokk ak moom di jàng kaamil di jàng ci moom di tarbiyu ci moom kon bu ñu laajee ci moom Euh, danañ ci sawar a wax ndax lañ cay wax du luñ làmbatu luñ dund la luñ xam la te amut fuñ ko ragal a waxee waaw parce que lim ñuy jur jur duñ ko sosal mukk maqaama boo xam ne yàlla joxut ko ko duñ ko otel la itam loo xam ne yàlla joxut ko ko kon Seydi Aliou Cissé mu ngi juddu 1906 ci dëkk bu ñuy wax Diossong mu ngi cinq kilomètres de Sokone nekk huit kilomètres de Passy Diossong mu ngi nekk diggante jo Passy ak Sokone dëkk la boo xam ne maamam bi sanc bi jur yaayam muy Samba Thiani moo sanc dëkk boobu wax nañ ne mag ñi fa nekk wax nañ ne moom Seydi Aliou moo fa njëkk a juddu ci dëkk boobu ci góor moo fa njëkk wattu alquran kon Seydi Aliou cosaanam mooy soo ko Diossong euh, mu ngi mu ngi bokk ci région Fatick ci département Foundiougne nekk cinq kilomètres de Sokone waaw foofu la juddoo foofa la jàngee alxuraan maamam bi ko jur maamam bi jur yaayam Samba moo ko jàngal alquran ba mu wattu ko gannaaw bu mottoo alxuraan ba baayam génn àddina eh, baayam wóllëre maam alxaaji Abdoulaye Niass la woon mi jur Mawlana Cheikh Ibrahim wóllëreem la woon taalibeem la woon itam muqaddamam la woon wax nañ ne sax gàmmu gi maam alxaaji Abdoulaye mujj a gàmmu keroog ba muy jub di fatu daf ko wax ne ko toogal suma place nga àggali gàmmu gi kon wóllëre yu yàgg lañu noonu la meloon ak maamam itam moo tax bi nga xamee ne Seydi Aliou jàng na ci moom alxuraan ba wattu ko ci at yu néew ba baayam génn àddina ci la fa maam Alaaji Abdoulaye ñëw war a def miraas bi loolu moom ci boppam nettali na ko ñu dégg gannaaw bu rajo Gàmbi ñëwee fii di ko laaj ndax moom xamoon na maam Alaaji Abdoulaye ci la maam ñëwoon foofu war a miiras fekk na baayam dénkaane woon ne dafa bëgg ñu jox moom ci moom ci laa meñam euh, man maa ngi amee sax benn audio boo xam ne rajo Gàmbi ñoo ko doon laaj wax ko euh, bi ma alaaji ñëwee ba def miiras mi euh, mu ne journaliste bi sax laaj na ko ne ko ndax xam nga ko ba mos a wax moom mu ne ko xam naa ko bu baax ndax dama doon ànd ak suma maam di ñëw ci moom ne ko itam bi suma baay génnee àddina moom moo fa ñëwoon di def miraas mu ne bi mu ñëwee lim ko njëkk a wax daf ne ko demal nga bindal ma dara ci alquran mu ne ma bind ko mu indi ko bi mu ko xoolee mu ne kii dama koy booleeg suma Ibrahima waaw danaa dégg ñu bari nag di wax ne. dafa wax ne ku ko booleeg Ibra ñu dem waaye moom bi muy nettali waxut loolu dafa wax ne bi mu ko indilee lim bind ba mu xool ko dafa wax ne kii dama koy booleeg suma Ibra kon foofu mooy dëkk boobu mooy cosaanam baayam mu ngi tudd al Assane Cissé moom la tuddee imam Assane mi waaw yaayam mu ngi tudd Aysatu Jama loolu mooy cosaanam leneen aussi loo xam ne bokk na ci wax nga ci wàllu njàng mi nga xam ne tamit am na beneen taxawal bu ci amoon waaye ci ban moment ci la déplacé wu ñëw waaye tamit bi mu ci Kaolack lan moo ko boole ak jëmm ji nga xam ne moo di Mawlana Cheikh Ibrahima Niass. moom mu ngi ñëw fii 1922 1922 nettali na ci nettaleen boobu mu ne ba fa maam Alaaji ñëwee doon miraas si baayam ba miraas mi pare mu ne. fekk baayam dénkaane na woon na ko ne na ko yóbbuwaale mu ne ñu ngi fa jóge ba si jeudi euh, bi ñu ñëwee Kaolack jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi mercredi boobu ci la maam Alaaji Abdoulaye Niass génn àddina bi maam Alaaji Abdoulaye Niass génnee àddina bàyyi xalifa ñu koy Alaaji Mouhamed Niass nekk xalifaam nekk e, xalifa maam alaaji jiite leen ñoom ñëpp ñoom bàyyeek ak ñëpp nekk ci ronam nekk kilifa gi waaye Seydi yi moom yàlla daf ko teel a booleeg Mawlana Cheikh Ibrahima ndax Imaam Hassan wax na ne bàyyi ne na ko sa baay ñoo bokkoon néeg bu ñu fanaan dara tàggalewuñu lu may bi ma sampee kër maanaam bi mu amee soxna ci lañ door a tàggoo waaye ñoom ñoo bokkoon benn néeg njëkk bàyyi di oote ooteem bi maam alaaji nag moo ko indi woon maam alaaji moo ko booleeg bàyyi tam ba muy wax ne daf koy booleeg moom boobu fële la woon boobu ñëw Kaolack mu ne moom moo wax ne keroog ba mu liiree lim bind ci alxuraan la wax ne kii dama koy booleeg suma Ibrahima ba mu ñëwee itam moo leen boole bàyyi mu ne ñoo bokkoon benn néeg bu ñu fanaan dara tàggalewu leen lu may moom bi mu takkee soxna moo Mawlana Cheikh Ibrahima nettali na ko imaam Assane maam alaaji itam bi mu ñibbisee la semaine boobu nga xam ne ci 1922 moom la mujj a jàngal moo ko dalal Laxdari waaye àggaliwut ko parce que une semaine lañu am mu génn àddina bi mu génnee àddina nag lépp lum jàng gannaaw loolu bàyyi moo ko ko jàngal bàyyi wax na ne sax bi mu ñëwee bàyyi lim njëkk a def daf ko toppal alxuraan. ne toppal na ko alxuraan moo ko jàngal ni ñuy bindee boobu fekk na mu mokkal alxuraan waaye mu ne bàyyi moo ko waxal règlement yi bind moo ko toppal alxuraan mboolem téere bu mu jàng daal lu mooy alxuraan ji nga xam ne maamam bi jur yaayam moo ko jàngal lu mooy loolu rek bàyyi moo ko doon jàngal waaw. ci leneen aussi xam nga nikki am na benn toolaay boo xam ne boo ko amee ci kanamam day fekk ne bari na lu ngeen jot jëflante ci loo xam ne kenn mënu ko naataable au-delà bi mu génnee ba mu ñëw sañ ci benn këram lan moo leen gën a boolewaat ba ni muy demee sax lu bare bari mu teg aussi ci loxoom ak nañu gën a boole mooy moom yàlla dafa defoon mu mën a bind lool daanaka bu bindee da ngay machine la gisee kii bi lii bind moom euh, bind na kaamil ay yoon yàlla dafa defoon mu mën a bind lool rafet loxo bapare bindam wow mag ñi dañuy wax ne ku wow bind la maanaam bindam moom sax nettali nañu ci làmmiñam fekk mu ngi doon tooñ benn sëtam bu ñuy wax sëñ Aliou doomi Alaaji Abdoulaye la moom moo jur yaayam léegi mu ne euh, mu ne ko fekk def ko bindloo mu ñëw mu xool ko mu xaw a am mu xaw tooy mu ne ko utee nga ak man ndax man bàyyi daf daan wax ne bind signal yu jarut seet maanaam bindam day wér te ba léegi euh, feeñ na parce que bindam yaa ngi fi da nga gis liñ ci amee ci ay mbindam ëpp na ay mille mille page yoo xam ne moo ko bind ak loxoom mais hatta oustaz Braham Diop wax na fii bis mu ne Seydi Aliou du jafe la ko yàlla may mu ne yàgg naa gis borom xam-xam mu bind waaye mu ne bind Sëñ Aliou kenn du ci gis yàq ndax dafa woowoon loxo daal loolu bokk na ci li taxoon bàyyi euh, parce que moom même ni muy ni mu nekkee woon bindkat yi bàyyi ba bàyyi wax ne moom mooy bindkatam noonu njëkk loolu noonu la ko nekkee woon ak Baye xalifa ndax rafet loxo bi mu rafet loxo ak euh, wér gi mu wér bind waaw loolu moom te itam xam nga comme dafa rafet loxo mbindam wér te Baye moom dafa amoon mission mission Baye boobu dafa laaj nga am secrétaire dafa am laaj secrétariat bu dëgër premièrement boo xam ne dara du senn Seydi Aliou loolu bokkoon na ci li ko yàlla may secret du seenee ci moom parce que lu em ni pays Baye bi ak mission bi Baye amee woon loolu dafa laaj secret bu dëgër boo xam ne dara du senn ku mel noonu euh, la Baye doon wër yaa ngi dégg Baye may ko yàlla may ko loolu mu nekk nit ku am secret loolu moom xataa dëkk bi sax ñi ko xam kooko ci laaj lim lay njëkk a wax mooy ne la borom secret la woon lu mu mos a jëflanteeg nit su ko keneen xamee yaa ko wax. moom li mu gënoon a bañ sax mu may la dara keneen yëg ko waaw loolu bokk na ci lim daan attaqué nit mu may la dara beneen nit yëg ko moom buy jëflanteeg yow du nangu doomam yëg ko du nangu soxnaam yëg ko du nangu mbokkam yëg ko kenn ki nekk daal lim seq ak yow loolu la seq ak yow waaw loolu moom xamoon nañ ko ci moom. ku ko jot a xam ku ne am lu bari lu mu tàggat ci yow mën nga koo wax ci moom loo ñu mën a wax ci moom ci jikko yi nga xam ne làmb la jikko yi nga xam ne xam nañ ko ci moom premièrement euh, jaamukat yàlla la woon parce que Seydi Aliou soo dëkkee moom vingt quatre heures sur vingt quatre yëpp fu mu la man di fekk ci àddina buñ la laajee ci lu mu nekk heure bi yow mën nga koo xam parce que dafa organiser woon dundam activité mu ngi commencé deux heures mu ngi commencé quatre heures du matin ñu nekkoon bëkki néegam fii quatre heures la ñuy dégg mu commencé yëngatu parce que moo nekkoon ilimaani jumaa ji nekk ilimaan boo xam ne waxtu du ko raw sëriñ aaxi bu mii doomi baay mos na ma nettali mu ne ma man li nit ñi aimé Seydi Aliou ak man li ma ko aimé du benn mu ne li mu ko éemee mooy fàttaleku na bi mu ñibbisee jugee xaayara bokkoon ci ñi taxaw jumaa ji ba mujj nekk bokk ci ilimaan yi mu ne ma mosuma fàttaleku Seydi Aliou ne julli leen tey duma mën a ñëw kon activité am premièrement moo nekkoon ilimaan bi euh, mooy tudd ngénte yi mooy waadi ceedi mooy taxawu néew yi te loolu terewut mu ngi amoon ay soxlaay boppam mu ngi am ay tool mu ngi amoon ay tooli jardin am tooli ñambi am tooli gerte am tooli dugub am ay wotiir yu daw am machine yi wal machine mule yooyu yëpp pour lan pour wane ne jaamu yàlla warta tàggale nit ak liggéey pour dund ak dundal sa njaboot jaamu yàlla warta tàggale nit ak yëngatu ngir am loo dundee euh, kon nag moom ku nekkoon jaamu yàlla la ku organiser woon dundam la lim daan def ci vingt quatre heure bu jot loolu lay def parce que bu eewoo quatre ba jëm jumaa ja bañ julli suba fa toog ba sept maanaam man li ma lay wax nii mooy six ans yi nga xam ne utu na ko bàyyi fa toog ba six su génnee dugg ci xabru bi six ans yooyu kenn mosta fàttaleku mu rate benn bis boo xam ne ziyaarewul xabru bi suy génn ci jumaa ji fa njëkk a ñëw mbooloo mi ànd ak moom mu ziyaare mu ziyaaree ñëw kër gi buy agsi kër gi fekk na am na ku jël caabeem daw ñëw ubbi néeg bi génnee piliyaan bi lal ñu génnee kaamil bi mu bokk ak nit ñi jàng kaamil su jàngee kaamil ba pare suba teel heure boobu ci lay réglé jigéen ñi tarbiwu su leen réglé ba pare heure boobu lay ndékki bu ndekkee ku doon teel a ndékki la ci organisation daanaka bés bu yàlla sàkk moom huit heures lay ndékk bu ndekkee huit dafay tëjaat tuuti ba neuf mu ubbi su ubbee am na ñuy ndekki néegam bu ndekkee ba pare dafay dugg otoom jaar ville dem hôpital seet ñi feebar continuer dem toolam fa lay toog ba une mu dellusi si bu une jotee mu ñëw heure boobu day tëj du ubbi mais ñim soxla dañu jaar ci gannaaw buntu bi léegi heure boobu ci lay nekk ba tusbaar jot mu dem jiite jumaa ku jiitee nit ñi julli tusbaar dëpp bés bu set trois heures lay añ amut changé su añee ba pare euh, kilifa dëkk yi ñu bëri ñëw néegam mu toog ak ñoom naan ataaya tàkkusaan mu dem julli ji su dëppee lal dars bi di jàngale day jàngale tàkkusaan ba timis jot mu jug dem jumaa ja jiite timis jiite wasifa julli gee door dëpp këram bu fekkee ne dars bi jeexutoon mu mottali ko suñ jullee gee pare nag dëkk bi yëpp ñi ko soxla ñëpp heure boobu la ñuy ñëw dëkk bi yëpp heure boobu lañ koy nuyu ñëpp dañuy ñëw kilifa yëpp ñëw néegam nuyu buñ ko nuyoo ba pare eh, am na ñuy reere néegam ñu indi leen reer ba pare ñu def dog bi am na wérdu bu ñu def suñ ko defee ba pare moom ci lay door a reer moom 11 lay reer bés bu set buy reer dana am ñun ay xaritam yu ñëw bokk moom su paree ba minuit jot ñooñ tasaaroo mu commencé régler ñiy tarbiyu régler boobu mooy dem ba 2h 2h bés bu yàlla saak 2h lay tëj néegam waaw kon da gis ne activité am 4h matin lay commencé ba 2h yow foo ne ci àddina bi rek soo dundee moom man ngaa xam. ci lan lay yëngatu heure bii nii waaw. loolu dem nga wax bokk na ci wàllum jiite gi lan moo waraloon bàyyi def ko comme tànneef pour muy jiite waaye tamit pour mu wutu ko mu nekk xale. li waraloon bàyyi tànn ko premièrement bàyyi moo ko jàngal xam na ne am na benn euh, diplôme sax bu mu ko bindal di wane ne maa ngi seede ne Seydi Aliou Cissé comme ni nit di àggee ci nekk. Euh, professeur ci université mu bàyyi moom mu bind mu ne seede naa ne àgg na foofu ci charia islamique dégg léegi nag lislaam kenn moomu ko lu may ku ku ku jàng am xam-xam man damay wax toujours ma ne sëriñ ñett la sëriñ ci cosaan ak sëriñ ci cosaan ak aada ak sëriñ ci maanaam am na sëriñ ci aada am sëriñ ci cosaan am sëriñ ci cosaan ak aada sëriñ ci cosaan ak mooy koo xam ne ku man di ak ku man di jur mooy ku jàng lislaam xam ko xam bu wér di ko jëfee ku la man di jur sëriñ la kooku mooy sëriñ ci cosaan sëriñ ci aada ak cosaan mooy koo xam ne dafa jàng charia xam ko di ko jëfee ba en même temps dafa fekk ay waajurum nekk sëriñ kon kooku sëriñ la ci cosaan sëriñ la ci aada sëriñ ci aada nag mooy koo xam ne yow sa baay dafa do sëriñ nga juddu boo jàngee lislaam ak boo ko xamee boo xamut yëpp Sénégal moom sëriñ lañ ley def kon sëriñ ñett la sëriñ ci cosaan sëriñ ci cosaan ak aada ak sëriñ ci aada kese moom nag yàlla dafa def mu nekk sëriñ ci cosaan ak ci aada parce que jàng premièrement ay waajuram sëriñ la ñu woon maamam sëriñ la woon baayam sëriñ la woon moom ci boppam mu ñëw jàng lislaam xam ko xam bu wér ba bàyyi jël xalimbaam bindal ko ne seede naa ne kii fi nit di àgg ba mën a nekk uni professeur ci université moom àgg na fa ci lislaam kon ko jàng na lislaam xam na ko te mu koy jëfee loolu bokkoon na ci critères yi tax bàyyi tànn ko mu nekk pour mu nekk ilimaan waaw imaamatu gi laay wax maanaam bi bàyyi sancee dëkk bi Seydi Aliou mosu ñoo fàttaleku koo xam ne moom moo nekk ilimaan ci bi muy dund ak bi bàyyi di dund bañ sancee dëkk bi ba bis ni tey moom mos a nekk ilimaan bi Baye sax moom daf daan julli ci gannaaw Baye ajjuma ak ajjuma la daan jiite wala moom su fi nekkul mais salawaatu sa yi moom bés bu yàlla sàkk moo koy jiite bu fi bàyyi nekkee ak bu fi nekkut waaw ba léegi sax ci kaset yi gàmmu yi am na benn kaset Baye fajar ñu julli fajar Baye ne ana séddaal yi ñëwagul ñu ne déedéet ñu toog ba kii di waaj waxtu waay am kul kuñ li xaamal biñ commencé ñu ne ñu ne bàyyi signal yooyu ñëw mu ne waa ji li xaamalaatal ndax li xaam bu njëkk bi kële nga li léegi imaam ngi door a ñëw ñu defaat beneen li xaam kon bàyyi ba mu sancee dëkk bi ba nim fi jugee ba ni fi séddaal jugee moo fi mos a nekk ilimaan tamit parce que njàngam mu wér moo njàngam dafa wér maandoom wér critères yi ñu tànnee nit pour mu nekk imaam yëpp moom Baye gisoon na ko ci moom parce que Baye charia islamique bi daf ko fonk fonk goo xam ne du ci maslaa du mbokk du doom du xarit moom du maslaa ci charia waaw charia kum ci tànn rek xamal ne critères yëpp dafa dajee ci yow mu door laa tànn moom du ci tànn ci maslaa du ci tànn ci parparloo du ci tànn ngir mbokk du ci tànn ngir dara ku ko eeyoo rek la koy jox moo tax Seydi yu yàlla mayoon na ko bàyyi tànn ko mu nekk ilimaanam waaye di julli ci gannaawam mosuñoo gis bàyyi kiritike julleem wala critiquer ko ko ci dara ci lu aju ci charia islamiya